asalaamaaleykum mbokki Dialaw i ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen jox seen wàccuwaay ku ne ñu fekk la fa nga ne ne la jabar loxo gannaaw loolu seeni xarit seeni doomu ndey bàyyi lay doy ak PSC ñoo fi ñëwoon di leen mi gannaaw loolu mënu ko bañ a nuyu sama papa sama maam la Aminta Bazan kantum za ndegere xee puccen mbere gi yaa col gi yaa xiri kaw tubaab eh, ka sa becco xaay xaaye mbaata tum mbaata tum tuf mbaa waaw gannaaw loolu la grâce tey dama andi un thème spécial mhm. mooy lii xew ci rajo sociaux yi rawatina whatsapp yi les réseaux sociaux les réseaux sociaux rawatina whatsapp va waa mais réseaux sociaux yi bu ñu defaratul surtout whatsapp bi temps yi li moi pas. ah mais non. ban oui, réseaux sociaux yi temps yi ñu ngi ñuy commencé tardel ban bi kenn jàmmatul yàlla bu egg ah. kenn amatul tuyaaba. xale yi xale yi ñu ngi ñuy nous ñu ngi nous suñuy papa di leen dugal sur whatsapp pour autant ñu ñuy xool tamit ah, mais c'est de la merde. non c'est de la merde. vraiment vraiment mais grâce je affaire la affaire bi mhm. <laughs> oui féliciter notre euh, notre grand-père Coach euh, Barma bon il a travaillé non bon oui Barma wax na <laughs> bon oui gis nga euh, réseaux sociaux ko WhatsApp je te le répète plus réseaux sociaux

non loolu dafa ñaaw rawatina a yu jigéen ñi am jëkkër man un yi daanoo faral nag qui ont gën a man man man le grand lay whatsapp c'est extraordinaire non c'est honteux de nos temps 18 euh, dix-huit ans téléphone mais les les enfants de deux cinq ah, non nga bu même pas il a six mois il a son téléphone <laughs> le grand lay whatsapp da nga may ruubee wala. bien sûr day whatsapp. waaw mais le grand lay da nga xaw a juróom dama lay wax c' est vrai da nga xaw a juróom damaa ñaaw. ah, ah ok d' accord surtout xale yu jigéen ñi am jëkkër ngir yàlla war a dugal leen mu seen a xol. Ah. yéen jox ñu ab cër. comme le diile lébu digal leen ñu. daa war a teel a tëdd. Ah, waaye nekk rojo soso yi ba 1h du matin 2h du matin amna sama amna sama ben jabar bo xamanteni lolu mo xam tassak mo xam nga man amna 82 on 90 jabar amna ko ba wi legui la invite ko na ñom ba te ñepp wax sax mo tax ma ma arrêté ñom mo damay wacc ñu wax ma may ndox duñ ma may ndox man damay sonu be bëgg dé legui da ngay da ngay dugg ci kër da ngay fekk mo legui famille man pour taw rassemblement waxtan lolu amatu da ngay dugg ci kër gis ku ne yor téléphone aussi di di di di di di n'importe quoi. le ça c'est pour les enfants c'est pour les enfants. Tu ben une dog la lay de l'année 85. tu connais cette boy là le petit biccio ah pas lui. non t'appelles le grand sensor. Oh, no, the new Andon, saya lagi rasa saya. The new Andon, dem sa tibay na Muna kalay bi, mo dagis kalay bi bago ko. Muna ko, dama lagi bago la. Boy bin ako, no, man, dama lagis bago la. Boy bin ako, o sit ni yung bago ko. No, muna ko, muna kalay bi, kilong buru tu bako la booy bi na ko noonu kilo mburu ñaari bopp lay am. mooy le petit bi coono di. mooy c'est nous deux. non. eh cette femme la man lii bëgg mburu lay dikkee. bi le petit bi coono yi de Mariam. maa si de. c'est un na xale bi naka kii da laa gis bëgg la reen xol faa xam ci yow xorom bi gurguri papa am na grand la fa laa tourné bu tey dina la may soo yaa booy. maa ngi le grand âge. ordinaire eh, xale bi ko waa soowu yaa bay man de dama koy keccax ma ne ko waa après man ma fàttali ne ko weer non c'est xoon gannaaw loolu ñu ñëwaat ci biir thème bi père suñu parents yi suñu papa yi ngir yàlla dee leen xool seeni doom lu ñuy def ndax tey jii xale yi yorootuñu respecté tuñu seen bopp lu xew lu ne ci whatsapp bi la xewee loo dégg lu ne ci whatsapp bi nga ko

vraiment c' est xont ah loolu ñu ngi woon ci seen émission mbir mi gannaaw loolu temps bi dañoo xaw a euh, mu may envoyé message maa ngi nekk commentaire nag waa commentaire gis nga le grand père tey ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay ziar di la bëggee et le grand papa waay waay waay di vu les commentaires waaw numéro bi pour commentaire yi 77 300 0 géej 268 0 géej ak ma koy fàttali mbokk askanu Jalaaw bi waaw bëggee et suul gannaaw loolu daal ñu ngi woon seen émission fii mbir mi fii la xewee si seen seen télé Jalaaw TV

di wax ne mbokk askan wi seen émission mbir mi fi lay xewé ci Dialaw TV ñukoy amaat ci yeneen i jamono inshallah allah. je vous salue. ok gars merci hein à bientôt.